crise qu'on dans le Sahel mm. euh, je crois que loolu lu am lu am importance ah ouais. Mm. oui, oui euh, la l'actualité de, au niveau de la presse est marquée par euh, la de la liste des au niveau du mm. des de pêche ak navires yi nga xam ni ñoo ñoo mën a ñoo mën a napp ci géej gi problème bu géej gi moom yàgg nañ ko wax yàgg nañ fi invité ay nit et ça a posé beaucoup de déboires par rapport aux accords de pêche aujourd'hui man li may saluer mooy euh, la transparence qui existe dans mhm. la publication des listes mhm. parce que tamit d'habitude daanu ko woon am daanu yoon am mais maintenant on a liste bi génn na xam nañ ñu war a ñu war a utiliser géej gi ñan ñoo ci war a napp ak nàngam maintenant am na neuf euh, navires européens yi nga xam ni bokk nañ ci accords yi maintenant lu quel type d'accord la ñu am ak ñoom. la am ak ñoom. c'est important de publier les listes. Mm-hmm. mais c'est important aussi de savoir quel type d'accord la am ak ñoom. est-ce que le Sénégal va y gagner ou bien le Sénégal ne va pas y est-ce que les mm-hmm. bateaux yi nekk en profondeur bateaux européens yi la wala les Sénégalais en font partie. Mm-hmm. parce que aussi euh, publier liste baax na trop. mais wax ci mais daal saluer dans le comportement quand même de de de publier et que nit ñi mm. sénégalais yi xam ni lii mooy arme arme armure yi nga xam ni ñoom ñoo war a utiliser suñu géej bi et on voit que les les armures euh, sénégalais bëri nañ ci lool lool lool lool ci ci situation boobu. Mm. mais war nañ ñu mën a wax yan type bu contrat la ñu la ñu la ñu la ñu signé. Mm. maintenant on a parlé de de de d'exonération fiscale ah de à suñu fiscalité bi nga xam ni moom mooy évaporé par rapport à. aux, aux accords qui ont été signés entre les sociétés minières et autres. Mm -hmm. Bon, un état boo xamante ni il faisait beaucoup d'exonération fiscale on a vu que avant avant le président de la République Macky Sall di dem sax jot na jot na def exonération fiscale par rapport aux, aux maisons de presse et autres. donc aujourd'hui euh, nous avons des fiscalistes à la tête de ce pays-là et je pense que soo déglu woon sax seeni discours au niveau de l'opposition nee Sénégal bëri ay poche yu ñu mën a jële xaalis je pense que fiscalité bi su nekkoon fay nañ ko normalement avec les entreprises européennes parce que cinq deux cent quarante huit milliards yi su duggoon ci gaf ak Sénégal peut-être mën na permettre ñu ñu la question de l'électricité dans ce pays là. Mm-hmm. Euh, ñu subventionner l'électricité bi nga xam ne augmenté na fi mu nekk nii. dina permettre ñu mën a subventionner une partie des denrées de première nécessité pour nga xam ni du mën a du mën a du mën a yokk par rapport à la population. maintenant l'opposition sénégalaise elle est inexistante pour l'instant. pour l'instant pour parce que mm-hmm. aussi xam naa ne aussi il parce que peut-être euh, c'est des gens qui dañuy jox dañuy respecter le la le délai de cent jours pour pouvoir xool seen euh, ki nga xam ni moom moo nekk ci pouvoir bi lan lay def ak fan la dog mhm. c'est vrai doyen wax na ko c'est pour l'instant on ne sait pas qui est à l'opposition mais xam nañ ni peut-être la Benno Bokk Yaakaar est à l'opposition mhm. mais le reste des partis politiques ñan moo ci nekk opposition maintenant saluer la sortie le courage de de de Thierno Bocoum mhm. a à travers euh, une correspondance wax wax ay position par rapport à beaucoup de choses donner des orientations Mm-hmm. parce que aussi euh, ci 100 jours le gouvernement a posé beaucoup d'actes forts allant dans le sens de d'arrêter la de, dans le sens de régler la question foncière allant dans le sens de régler de poser des actes allant le sens de la question de la pêche mm mais dafa am ay question yoo xamante ni importante yoo xamante ni peut-être dañ ko fàtte mm-hmm. moo xamante ni par rapport parce qu'on a parlé des réformes démb maintenant si on parle de réforme naka la ñuy def euh, loi d'amnistie bi nga xam ne moom moo leen concerné parce que am na ñoo xamante ni des lois s'étaient élevées ba muy def amnistie bi quand quand ils étaient à mm-hmm. pour dire que loi bi warul jàll des des des candidats avaient même dit suñu accéder au pouvoir ñoom dañ koy éliminer dañ koy supprimer pour pour mm-hmm. leeral mbir mi maintenant ay questions yu importante la yoo xamante ni euh, Thierno Bocoum posé na ko maintenant c'est à l'état de voir yan ban la ci mën a am mm-hmm. par rapport au renouvellement du personnel politique la disparition de certains dinosaures comme ñoom ni ñu ko waxee ni ko presse bi titré mais ça il faut il attendre il fallait s'y attendre parce que aussi. Mm-hmm. le Sénégal a choisi euh, de prendre de nouvelles personnalités teg leen ci bopp réew mi ak nouveau parti boo xamante ne jaarul fenn teg leen ci bopp réew mi maintenant nag euh, il faut que l'opposition sénégalaise su nekkee dina am organiser wu à leur, organiser wu à leur interne pour pouvoir faire ce qu'on du du personnel politique parce que yaakaar naa ne pour faire face à une opposition à un pouvoir qui est éminemment jeune je pense qu'il faut des jeunes à la tête de ces partis là comme ni ko Serigne Sey euh, nu mu tuddee ni ko Thierno Bocoum defee et je pense que l'APR qui est le principal parti de l'opposition war na mën a taxawee taxawaay boobu quand on nous parle de Mame Diop je n'ai rien contre Mame Diop mais comme leader politique qui doit faire face à ce pouvoir là je pense que le l'APR a a besoin d'aller vers une autre mutation pour apporter de, du sang neuf dans le champ politique parce que yaakaar naa ni euh, renouvellement bi s'est fait naturellement avec euh, l'avènement de Bassirou Diomaye Faye à la tête de ce pays là. Mmh.